bismillahi rahmaani rahim kenn ku nekk ci mbooloo mi fi teew ñu ngi sàkku ci yéen kenn ku nekk jàngal Omar bismillahi rahmaani rahim ñetti yoon ñu defal ko bismillahi rahmaani rahim ñetti yoon li ma ci jublu nag mooy lépp lu ñuy tàmbale buñ ko tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla mën na cee def barke ba nga tel ko fekkee ko sa yéene yegg ci alhamdulilahi rabbil alamin ñoo ngi nuyu bu baax waa dëkk bi nuyu bu baax kilifa yi yiñ fi fekk di leen ziyaar bu baax ci tabaski bi ñu bàyyeekoo jaamu yàlla ñi ci def yépp yàlla na ko yàlla nangu yàlla dimbala ñu ñu fekkee koy déwén yu baree baree bare suñu maam ji fi bàyyeekoo bu yàggul yàlla na ko yàlla yërëm muy maam ñaaña moom ak mboolem néew ya fa tëdd yàlla na yàlla teeru leen ci aljana ya gën a kawe ci firdaws du nuyu bu baax imam dëkk bi di leen wax ne fii nag man yaakaar naa duma fi gan yàlla dogal na ñëw naa fi ñëwati fi sama kóllëre ak Omar daanaka doonul sax li ma tax a gën a ñëw waaye li ma gën a tax a ñëw mooy yéene bi mu am ci dëkk bi di nuyu bu baax Euh, docteur euh, faati moom nga xam ne mooy euh, directeur général Allo dakaar di Kolera Omar di xaritam di ko jàppale ci liggéey bi ndax déplacement bi mu def déplacement bu rëy la ci ñun di wax na it ne yéene bi nga xamante ne Omar Diallo am na ko ci dëkkam yàlla dafa def li doomu aadama yi gën a miin gën koo xam ci politique ak ni politiciens yi di ànd ak seeni ñooñ moom yàlla dogal na buggul jël voix boobu ndax li tax bëggul jël voix boobu mooy ñun li ñu xam bu ki jotee magu dëkk bi yëpp àndandoo dem ci mairie ba ku nekk di wuti xar buñ sañoon nag magu dëkk ba duñ dem di uti xare gi saaku ceeb waaye dañuy toog seeni kër seeni doom indi leen xare gi saaku ceeb ñun politique boobu lañ bëgg a def politique boobu nag bu ko nit ki bëggee def day baax day xam day jaadu wax dëgg fa yàlla nit ñi koy jàppale xam bu baax kii lan moo ko tax a jóg ndax nit ki laa dimbale te tanewu la laa won yoon it te jiituwu la ci yoon ba ndax ku la jiitu suñ néeg rek moo lay wax ne la toogeel nii wala toogeel ne moom nag yéene bi mu am dañuy wax ne mbay ci sa weewu tànk mun munta ñëw topp kër yi kenn ku nekk di xool borom ordonnance muy jënd di xool borom dépense mu leen jox dépense di xool borom ceeb mu leen jox ceeb waaye loolu ni mu ko bëgg a doxalee moom xool ana lan la mën a def ci dëkk bi loo xam ne doomi dëkk bi dinañ ci mën a jariñoo ndax kenn ku nekk sa yéene mooy sa sa sa say njaboot say doom awula ci sa biir kër te pour ñu mën laa awu foog nga créé fa loo xam ne ñoom ñëpp dinañ ci mën a gis seen bopp am ci seen wërsëg di mën a jàppale seen waajur kon intention boobu moo tax a jóg Omar Diallo bi ci desit mooy yéen ñi nga xamante ni fii mooy baasam góorgóorlu leen ba saa bu gis leen ci ginnaawam góorgóorlu leen ba saa bu gestoo gis leen ci ginnaawam ndax kat nit il faut que mu xam li ko yàlla defal ñu ñi nekk ak moom ànd ak moom pendant des années di liggéey ak moom wax dëgg fa yàlla xam nañ bu baax li ko li yàlla def ci moom ci ay qualité waaye it loolu pour ngeen mën koo xam bu jëlee yoon boo xamante ne daf ci daf ci bëgg a jaarale ay rakkam jaarale ci ay ay ay ay waajuram ci yéene bi mu am ci dëkk bi kon nag day jaadu képp kenn ci yéen xool bu baax naka lay àndeek moom du ànduk ordonnance du ànduk dama manqué dépense ndax li ko yëkkati ëpp na loolu du ànd tëral programme yoo xamante ne ay programme la yoo xamante ne daanaka lu ñuy séddoo la rek mu jeex ku nekk dem sa yoon loolu taxu ko jóg li ko tax a jóg mooy xam na fii la cosaanoo amul dara loo xamante ne am na yéene def ko fu feneen fu ëpp fii kon nak day ñew ak xam-xamam day ñew ak indi ñu bax ñuko yalla yàlla day ñew ak ki andondoom day ñew ak ki ko xamne japp na ne bu and ak yow rek lim bëgg def ci dëkk bi dana ko def te bari na lo xamante pour nit mën ko def fokk nga manam yor ben cër cër bobu mo lay mëna permettre lepp lo am lepp lo xamne am nga yéene investir ko sa dëkk mu yomb la ndax wàllu matériel bi nga xamante ne rek ci côté mbay la am na ci ay partenaires yoo xamante ne xam naa leen bu baax monsieur Fatou mi xam ne leen ñoo ngi Espagne waaye tey loolu ay centaine de millions la yoo xamante ne bu ko bëggoon a dugal fii foog mu bokk foog mu bokk ak nguur gi liggéey boobu pour ñu pour ñoo ñu mën a def investissement boobu ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon nag wax dëgg fa yàlla maa ngi bëgg a guddal waaye daal li ma bëgg ci samay kàddu leen dong la moy ngeen jappale ko te yalla tax assalamu alaykum wa rahmatullah merci sa merci sa content nañ ci yow trop te gis nañ ni ngay taxaw Omar également lol man man na ko seede ndaxte biñ nekkee Dakar ya xarna buñu ñu soor koor gi kérok ya fa nekkoon coono bu nekk dañ nga ko ko kérok man ak yow min wi lañ taxalo te vraiment responsable nga am nga yenn yitte yoo waroon doxi mais bàyyi nga lépp ngir tout simplement dox ci waaw Omar bés boobu kon ñooy kontaan ci yow lool di gis également li nga wax fii am na solo trop partenaire yi mu am extérieur te partenaire yooyu ab benn responsabilité rek moo tax mu mën a am si ñoom accès c'est-à-dire responsabilité da boo xam ne da koy am fii ci gouvernement bi te moom Omar mi loolu moo ko yëkkati doon maire moo ko yëkkati kon responsabilité boobu ñun ñoo ko mën a jàppale moo tax Issa Daniel ci base bi te fii mooy base bi ndaxte fii la soxla fii mooy Ndofane kon ñun ñëpp jeunes les jeunes conscients il faut ñu jóg jàppale ko quoi mais nag terrain la foofu terrain de football la quoi bu ma passé Omar Omar na def benn retour bu ma dugalul sax keneen dugal nga daal ne mooy gis na ci benn kii benn qualité humeur boo xam ne day préserver le bien commun mooy c'est-à-dire mënta dox ku nekk may ko déedéet loolu moom wax dëgg feer la beneen benn doomu aadama mënu ko mais ñu jàppalante rek te yàlla tax te am na ay projet yu bëri yoo xam ne Omar yoon na ko incha allah lépp dina baax kon daal ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax Issa ci li nga wax nii kontaan nañ ci yow.